Alhassane Niang ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waaw ñu ngi lay delloo nuyoo di euh, kontaan ci invitation bi ngeen ma defal tey. Mm-hmm, ngay spécialiste en réforme institutionnelle ak gouvernance démocratique euh, jiite tamit. Euh, mm-hmm. parti bi ñu duppee jiital wareef. parti la nest de devoir en mhm. mouvement Sénégal. nga fësal benn contribution benn jàngat wax ci euh, li nga xam ne mooy sanction yi CEDEAO yëkkati ci teg ko ci ndodd Mali nga jàpp ne euh, tey ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jiitee di njiitu réewu euh, Afrique Afrique de l'Ouest daanaka euh, maanaam àgg nañ ca cappaandaw ga maanaam ils ont franchi le Rubicon lu waral wax jooju. waaw li waral wax boobu mooy xam nga boo leen bokkee benn kuréel boo xamante ne da ngeen toog ngeen waxtaan seen biir depuis mille 1977 ngeen naan ñun kat dañu bëgg a jógee ci li nga xamante ne moom mooy suñu état yu ndaw yi pour mën a former benn ensemble bu rëy benn kuréel bu rëy boo xamante ne moom mooy waxee benn kàddu boo leen demee ba def loolu loolu dafa am lu li muy jur mooy euh, Sénégal amatul frontière Mali amatul frontière Guinée amatul frontière Nigéria amatul frontière donc c'est-à-dire que ñoom ñëpp dañoo d'accord ne seen frontière dañ koy dindi dajale ko mu doon benn frontière boo xamante ne frontière u espace CEDEAO donc ñoom bu ñu toogee ba pare ñu ne li nga xamante ne moom mooy suñu mbëbët mooy lépp loo xamante ne ñu ngi koy duppee libre circulation des biens et des personnes maanaam Sénégalais bi fu ko neex ci CEDEAO mën na ko su bu ko neex sax mën na bañ a yor passeport donc te loolu dañoo ne loolu principe nga xamante ne moom moo tax sax ñu mën a créer CEDEAO ëmboon euh, li nga xam moo tax ñu créé CEDEAO waaw yow bu ñu demee nag ba euh, tënk loolu tey ñu ne euh, dëkk yooyu nga xam ne ñoom ñoo ngànk am na ci ñenn ñoo xam dañoo rocceeku naan dañuy sanctionné kenn ci ñoom ndax benn transition boo xamante ñu naan transition bi un an la war a doon ñoom ñu ne def pour quatre ans mm. ñu ne kooku ba ne léegi citoyen wu dëkk boobu amatuñu sañ-sañu naan dañuy génn seen dëkk di dem ci yeneen dëkk loolu dafa doon loo dafa doon loo xamante ne lu jaaduwul la leneen li tax ñu ne dañoo franchir le Rubicon maanaam li ñu def dafa jéggi daj mooy euh, euh, euh, boo nekkee ci benn espace mm. ñu tuddee ko espace économique monétaire muy UEMOA xam nga dañoo ne olof dafay naan buñ la buñ la tàmmee dëmb ñu lay fekk ngay seeñu kon yow sa say mbir war nañ ko xoolaat mm-hmm. espace boobu dañ ko yàgg nga naan moom amul indépendance fi euh, kii monétaire maanaam suñu réew yi muy huit Sénégal Burkina euh, Mali euh, Bénin Togo Côte d'Ivoire et cetera mm-hmm. ñu ne ñoom amuñu indépendance Euh, monétaire wa léegi bu ñu jàppee ne amuñu indépendance monétaire parce que dafa am benn réew bi nekk seen ginnaaw ñu gis tey Mali nga xam ne moom mooy la troisième économie de l' espace de l'UEMOA dëkk boobu ñu jël ko sanctionné ko mais ci ay sanction yu brutal yoo xamante ne ñu ne lépp loo xamante dafa doon alal boo xam ne Mali moo ko moom nekk BCEAO ñu ne kooku dañ koy tëj de sorte que Mali dootul sax mën a fay ay fonctionnaire am lépp loo xam dafa nekk ay obligation ko mën a respecté mais loolu boo defee jëmale ko ci kaw xamante ne yéen yéen a bokk destin yéen a bokk foo leen jëm seen aspiration yi benn la mais kon li ngeen def dafa jéggi dañoo loolu moo tax ñu tuddee suñu taxe bi ils ont franchi le Rubicon maanaam li ñu dafa jéggi dafa yegg ci ca par kon daal ci xayma looloo waral tamit nga ne euh, dafa am contradiction ci décision bi ñu jël. waaw décision bi ñu jël dafa am contradiction bu rëy ndax xam nga boo taxawee ne man damay ànd ak nit ñuy jëm foo xamante ne daf lay indil euh, euh, day suqali li nga xamante ne moom mooy seen i seen i seen i seen i askan seen i am-am seen i koom-koom donc boo bëggee def loolu ba pare nga ne damay ànd ak nit parce que xam naa ne bu ñu àndee dina mën a permettre ñu mën a aar suñu bopp parce que suñu kaaraange da doon kaaraange bu dëgër waaw yéen boo leen àndee di def loolu ñu xëy rek ngeen jël ay décision yoo xamante ne décisions yi dafa dëppoowul ak li nga xamante ne moom mooy charte organisation boobu maanaam kuréel boobu hmm. kon ñoom ñu ngi wàcc li nga xam ne moom mooy yoon ndax wax naa ma ne la dès l'instant que yéen taxaw ngeen ba euh, ba ba dëxëñ benn kuréel hmm. dafa bind ay chartes yu leer ne leen kon dès l'instant que yéen bokk ngeen ci kuréel bi rek frontière amatul maanaam amul kenn koo xam ne mën na am Euh, euh, euh, mënoo dem ci dëkk bi wala mënoo dem ci espace bi. Mhm. amatul mhm. donc ñii bu ñu jógee rek taxaw chef d'état de la CEDEAO bu ñu taxawee rek ne dañuy tëj frontières yi vis vis du Mali. kon dañu nekk en contradiction avec li nga xam ne moom moo ak principe bi tax ñu tënk CEDEAO dañu nekk également en contradiction par rapport ak li nga xamante ne moom mooy li CEDEAO prévoir en termes de portée juridique mhm. moo tax ñu jàpp ni décision yi dëppawul ak li nga xamante ne moom mooy yoon waaye dëppawul ak li nga xamante ne tam moom mooy raison ak logique. bu dee tey euh, décision yooyu ñu jël àndul ak euh, wala sax dëppoowul ak yoon kon euh, plainte gi Mali di wax ni da koy teg ci ndoddu CEDEAO kon Mali mën naa am chance. ci mbir mi gis nga bu ñu nekkee ci espace boo xamante ne xam nga CEDEAO dafa am dafa am yoonu boppam. Mhm. dafa am benn cour de justice de la CEDEAO. Mhm. boo xamante ne moom mooy atte lépp loo ne dafa nekk ci biir espace am moom mën na ko atte donc Mali bu demee foofu man dama jàpp sax ne Mali yéex na faa dem ndax bu fa demee dañ koy jox yoon dañ koy dañ koy may dëgg ndax fi mu sukkandiku pour dem nan day dem euh, euh, jël yoon boobu noonu pour euh, dem ñu atte fu mu sukkand fu mu fi mu sukkandiku moom mooy yoon ndax dafa am dëgg ndax chef d'état yi li ñuy def nii tey teguñu ko fenn wax naa ko sànq amul fenn foo xamante ne teg nañ ko sur le plan juridique boo ko boo ko xaymaa ci yoon teguñu ko fenn boo ko xaymaa ci li nga xamante ne xel war a mën a jàpp teguñu ko foofu teguñu ko fenn tamit donc Mali bu fa demee en réalité euh, di ngeen gis ne rapidement dina am gain de cause parce que euh, corpus juridique CEDEAO mhm. prévoirul ñu tëj ay frontières xam nga da gis ci biir réew yi nit toog rek wala benn président toog rek naan bon man xam naa dama xaw a mere sama eh, sama naataango bi rek xaar ma xaar ma sama comme hmm. yoon la ñu gis ay hmm. doy waar mooy amul benn juridique benn juriste bu koy relever li doy mooy même chef d'état yi ñoom seen bopp en réalité hmm. bu ñu koy def sax doy waar dans l'histoire da gis benn chef d'état boo xam ne moom day taxaw naan damay fermer sama frontière gis mais moom bu koy def jàpp na ne moom mi ci yoonam mais xamul ne en réalité li Euh, ci euh, euh, fi mbaxane doone benn mhm. ci biir espace bi ci biir kuréel boobu gëm nañu ne dina am gain de cause te loolu ñu koy ñaanal le plus vite possible ndax li xew Mali mhm. bu ñu jàpp ne Maliens yi rek la concerné li xew Mali en réalité dafa concerner toute l'Afrique en particulier Afrique occidentale bi nga xam ne ci la ñu nekk mooy Afrique de l'Ouest mhm. donc loolu na ci gars yi bàyyi xel bu a baax a baax a mhm. ndax tey yow boo jëlee Mali nga ne da koy sanctionné mais defuloo lenn lu dul sa bopp su ma jëlee pays bu ni Sénégal par exemple nga xamante ne Mali mooy sa premier partenaire économique loolu nit ñi dañ le premier partenaire économique du Sénégal c'est le Mali ndax Mali quatre-vingt pour cent de lépp waaye dafay jaar ci li nga xamante ne moom mooy Sénégal ndax li nga xamante ne moom la ñu sekk depuis la nuit des temps mhm. boo xoolee euh, fan yële ci ginnaaw Sénégal mi ngi inauguré ay travaux jëmale ko ci ñaari port mhm. benn bi sax daanaka li mu pare muy portu Sendou benn beneen bi mooy portu Ndayane nga xamante ne port bu rëy la. Mhm. waaw mais yow ndax nga bëgg a ci port bu toll noonu ak dayo boobu noonu. su nekkee dangay ngay doxalee ni Mali alors que Mali moo la war a mën a permettre nga mën a faire rayonner ce ce pont ñaata sénégalais ñooy liggéey des milliers de sénégalais ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci axe bi nga xamante ne moom mooy axe Dakar Bamako mhm. nga xam ne dynamisme li mu indil Sénégal ci ne yow euh, li nga xamante ne moom la gars yi def amul fenn fi ñu ko teg teguñu ko ci kaw économie teguñu ko ci kaw yoon teguñu ko ci kaw raison. sa xam-xam màcc ci wàllum réforme institutionnelle ndax yow gis nga ne tey jot na ñu daal di yeesalaat lii di CEDEAO li jëm ci texte yeeg lépp la ca nekk. waaw xam nga CEDEAO dañ ko war a yeesal. Mhm. ci lu mu gën a gaaw xam nga lu tax. Mhm. ndax CEDEAO booy xool ay ay ay texte am. Mhm. da ngay gis ne en réalité ñi inspiré texte bi tubaab yi ñoo ko inspiré maanaam dañuy jël. texte par exemple bi union européenne bi ñuy bi tabax union européenne xam nga ñoom dañoo bind seen i texte juridique yi corpus bi bi ñu bindee ba teg bi demee ba yi bëgg a créé CEDEAO ñoom dañoo jël texte yooyu ñu sukkandiku ci pour mën créer li nga xam ne moom mooy CEDEAO mooy benn donc yooyu loolu boo defee loolu en réalité am na yenn éléments yoo xamante doo ci bàyyi xel ndax texte bi bi tax nga mën créer benn institution mhm. euh, européenne mënul la même parce que réalité yi nekkuñu benn. kooku mooy benn. Mhm. ñaareel bi mooy tey da nga am benn décalage boo xamante ne euh, bu bu xaw a doy waar entre li nga xamante ne moom la chef d'État yi di doxal ak li nga xam ne moom mooy euh, li askan bi nam mhm. moo tax ngay dégg ñu naan dañu am CEDEAO euh, des peuples ak CEDEAO des chefs d'État nga xam ne dañu ko tuddee Euh, chef d'État donc loolu tant que defuñu benn liggéey bu am solo jëmale ko ci réforme institutionnelle yooyu mhm. kon euh, day gis nga euh, jiixi jaaxa bi am seen diggante day gën a yóbbu te tey ëmpaluwul kenn ni institution bu mel ne CEDEAO gars yi amatuñ ci moom kóolute donc te loolu dafa doon lu doy waar ndax CEDEAO moom mooy dix-huitième économie au monde mhm. donc nekk na kuréel boo xam ne dafa am solo ci suñu wàllu koom-koom mais bu bëggee Euh, loolu nga xamante ne moom lay représenté du point de vue économique mhm. suñu bëggee mu méngoo ak li nga xam ne moom la askan bi di am solo te réforme yooyu crise Mali ñuy permettre ñu mën ko def ndax crise Mali bi dafa wane li nga xamante ne moom mooy euh, euh, faiblesse su CEDEAO li nga xamante ne moom mooy ay lacune am bi daf ko wane donc je crois que bu ñu bëggee bi bu loo xamante ne nit ñi xel respecté ko moom la moom la am mhm. il faut ñu def réforme yooyu te bu ñu def réforme aussi lépp loo xamante dafa doon euh, euh, euh, li nga li nga xam ne moom mooy influence externe. Mhm. il faut ñu dindi ko mu doon loo xamante ne africains yi les africains de l'Ouest ñoo ko xalaat. mu doon un projet communautaire boo xamante ne africain ñoo ko xalaat de sorte que li nga xamante ne moom mooy attente ak aspiration askan bi ñu mën ci dem te mu doon loo xamante ne day jur yokkute jur loo xamante ne tam jàmmale daal pour ndax euh, faay yooyu tax na ba ñu mën a wax ne tey gouvernance démocratique dafa lajj ci Afrique. waaw xam nga gouvernance démocratique même bu dul euh, crise bu CEDEAO bi nii sax da gis ne gouvernance démocratique moom euh, ci suñu espace Euh, lu lu askan bi bëgg la waaye nekkul loo xamante dañ koy dund. Hmm. te li doy waar dans cette histoire mooy gouvernance démocratique boobu. CEDEAO xam na ko xam nañ dafa la waaye lan moo tax mu namm ci Mali lan moo tax gouvernance démocratique boobu appliqué wu ñu ko Côte d'Ivoire. lan moo tax appliqué wu ñu ko Guinée bi Alpha Condé a def troisième mandat. lan moo euh, de décisions de justice ndax CEDEAO loolu dafa baax nit ñi xam ko CEDEAO dafa am cour de justice. dafa am également lu ñu woowee parlement waaw léegi parlement boobu dafa yàgg def ay délibération mhm. cour de justice boobu yàgg jël ay décision gis nañ ko dans l' affaire de Khalifa Sall gis nañ ko dans l' mhm. respecté ci Sénégal waaw kon léegi comment se fait-il que CEDEAO boobu nga xamante ne moom mooy toog di xoolee bu jëlee ay décision au niveau de la cour de justice au niveau des délibérations au niveau de son parlement Euh, di toog di xoole ay euh, troisième mandat di fi am et cetera waxul dara mais ñu xaar tey ba Mali jóg rek ñu naan dañu koy sanctionné kon foofu da ngay gis ne dafa am deux poids deux mesures donc euh, moo tax crise bi dafa doon loo xamante ne dafa am solo ndax niñ ko waxee rek jafe-jafe boo gisee rek mhm. am na benn xikma ma ñu ci war a xool benn benn jeexital bu bu baax boo xam ne mën nañu ko ci gis donc li nga xamante ne moom la crise bi wane mhm. nga xamante ne day gën a mettre en en en relief li nga xamante ne moom mooy contradiction au CEDEAO Euh, di remettre en relief également li nga xamante ne moom mooy euh, absence finalement de de de de d'équité ci ni ñuy traité état bi donc je crois que loolu lépp ce sont des points yoo xamante ne réforme euh, CEDEAO mën na ko mën na tax ñu mën ko régler et puis faire en sorte aussi que peuple bi gis-gisam. Mm-hmm. ak ni muy xoolee CEDEAO mën na méngoo ak li nga xamante ne moom mooy. Euh, rôle ak mission bi nga xamante ne moom la institution bi gàddu euh, depuis 1977. ay mhm. simili rek monsieur Niang tey ji euh, teggi tànk gu CEDEAO teggi tànk ci décision yi mu jëloon teg ko ci Mali ndax nee nañu léegi pare nañu pour gunge leen ci transition bi. waaw loolu ni koy déggee rek mooy ñoom dañoo xam ne fi ñu tegoon seen tànk baaxul. Mm. dañoo xam ni li ñu defoon lajjite la. Mm-hmm. dañu xam ni li ñu defoon teguñu ko teguñu ko teguñu ko ci kaw ci kaw yoon. Mm-hmm. te nit ki. boo demee ba xam ni yow fi ngay dem nii jëmul kër baaxul mm-hmm. tegu ko ci yoon mm-hmm. ah ñaari mbir kese nga am soit nga foncé naan man xam naa li ma nekk nii ji yoon mais dinaa foncé parce que par orgueil ou bien nga xaar na nga ne ah, man kat li ma def nii jaaduwul kon bàyyi ma dellu léegi nag en langage diplomatique euh, pare nañu pour jàppale Mali euh, négocier ak Mali mm-hmm. du lenn lu dul xam nañ ni dañoo juum mais comme institution la dafa am benn langage bi ñuy moo tax ñu naan pare nañu pour enga pour euh, euh, accompagner Mali mais pare nañu pour accompagner euh, Mali nekkul lenn lu dul jum nañu te sanction yooyu ñu teg Mali duñ ko duñ ko appliquer la preuve dëkk bi nga xam ne moom mooy la mooy le tête la de pont mm-hmm. de tout ceci muy muy Côte d'Ivoire espace UEMOA ce serait intéressant de voir que moom vingt pour cent de ses frontières kese la tëj alors que un pays comme le Sénégal avec lépp li nga ne Euh, am na koog Mali sekk na koog Mali moom 100 pour cent la tëj euh, e dafa xam ni tey décision yi ñu jëloon c'était genre genre bluff la woon genre bluff pour xool ndax mën nañu xoxatal Mali waaye dañoo gis ne Mali dafa nekk réew boo xamante ne autorités yi dañu ànd ak détermination te seen détermination c'est une nouvelle pour la CEDEAO et pour l'Afrique moo tax ñu jàpp ni euh, li nga xamante ne moom la CEDEAO wax naan pare nañu pour ànd ak Mali accompagner ko wala négocier mm-hmm. loolu dañuy jàpp c'est une bonne nouvelle parce que le sort du Mali est intimement lié à celui donc de l'espace sous-régional. Mhm. donc bu ñu demee ba naan dañuy xoxatal Mali rek defuñu lenn lu di xoxatal suñu bopp. donc moo tax ñu jàpp ne euh, lecture bi ñuy def ci communiqué boobu. Mhm. Euh, nga xamante ne génne ko euh, dañuy day wane ne Mali le Mali avait Mali moo nekk ci dëgg. amul benn réew bu nekk ci biir espace CEDEAO boo xamante ne nekk na ci dëgg bu weesoo Guinée nga xamante ne ñoom dañoo ne ñoom du ñu appliquer sanction yi ci njëlbeen lañ ko wax may daanal fenn. Mhm. pour wax encore li nga xamante ne moom mooy euh, li nga xamante ne mooy yow naka ngay amee benn compagnie bu tudd Air Sénégal koo xamante ne commencé na dugg ci xolu africain yi. Mhm. Air Sénégal mi ngi nekk di déployer elam ci biir sous régional ci biir sous région bi yow euh, Air France jël benn décision naan ñoom dañuy suspendre seen vol deux heures après Air Sénégal dootul dem Mali mais vraiment dafay wane benn mbir boo xamante ne vraiment dañ koy naxarlu dañ koy naxarlu donc Air Sénégal boo ko empêché muy dem Mali mais kan nga koy def ko dul Air Sénégal ak Sénégal donc loolu daf lay wan vraiment ne dañu nekk ci ay réew yoo xamante ne wala ci espace yoo xamante ne xamuloo nit yi lu ñuy liggéey en réalité chef d'état yi il faut ñu toog delloo si xel xam ni espace communautaire bi wala seen i réew ñoom ñoo yor li nga xam ne mooy seen sañ-sañ Mali gis ngeen euh, Euh, vendredi bi passé bi ma bi président wootee euh, euh, manifestation xoolal ci biir réew bi foo mën a dem ci biir Mali ni ñi dañoo génn parce que le peuple mi ngi mi ngi ak gars yi mais ce peuple bu ànd ak yow mais doo ragal le peuple du Mali est derrière les autorités maliennes donc vraiment na gars xam ni am na loo xamante ne du wéy moo tax décision bi nga xamante ne wax nañ ko à travers un communiqué loolu dañ koy rafetlu parce que ci loolu la ñu a dem d'ailleurs foofu la ñu waroon commencé mais comme yàlla indi na delloo na seen xel bu ñu yegsee ci loolu rek loolu lañ ci sant. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Alhassane Niang. man maa leen di euh, gërëm bu baax a baax ci seen i euh, invitation euh, par rapport ak sujet bi parce que nekkoon a sujet boo xamante ne africain yëpp la soxal moo tax bu ñu yàlla maye ñu ànd ak vraiment suñu xel rek il faut que africain bu ci nekk mën a addu ci sujet bi te ñu ngi leen di gërëm yéen waa mi FM mm-hmm. vraiment de nous donner l'occasion de nous prononcer sur la question donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax mm-hmm.